man te xamante ne noonu demee lu may jàngi na. jàngi na wàcc ñëw di ndékki. jël si mburum demaat ñu woo ma ne ma ko. Mhm. yow bi nga yëgee loolu nan nga lépp yàlla buur bi. Mhm. am ne yàlla mhm. yow ko jox ndékki maa ko jox mburum ndékki moom. léegi moom bi mu fi jógee lan la la wax. daa xëy rek dem. waaw ma mu dem. bi ba pare. Mhm. booba rek man boobu laaj booba ba tey laaj gisaatuma ko ñu ñu wax ne am na lii am na. ñu ne ñu wax la na am wax la ko dafa dafa am ku ñëw wax la ne dañ ko rey. waxuñ ma ko rey. nañ la ne si wut la ma wax. ah moo la wax loolu. déedéet benn xale bu fa nekk. waaw moo leen lan. moo ne ma jàng see gudd. Mhm. ma ne ko moom di daan daw amul tappale pour jàng mun mu daan ne ma gisuñ ko ñu di ko seet beegu foofu. mu mhm. ngeen àggee fan fu ngeen ko fekk. fii si ci fan am miir la. tabax mhm. ñu def ko nan. ah tiim nga ko yow. waaw wax nañu sax dañoo fekk ñu rey ko jël benn morso mu si kawam. man gisuma ko sax. yow àggoo. Mhm. lu sax àggoo. dara dama àggul rek. Mhm. ndax yow mënoo ko xool. rey daal am na ah nee am yow bi nga ko yëgee yow lan nan nga def. am nag pexem yàlla ki ko def yàlla feeñal ko rek. yooyu ban heure lañ ko ko yi nga jàpp ñëw wax la ko ni lañ ko rey. sëñ Fall. ay mhm. moom nan la tuddoo sëñ Fall. ñaata at la amoon. war juróom-ñetti at. juróom moom la am mais moom da doon jàng am lu mu doon jàng. Ah, mhm. la doon jàng xamoon nga saar bi mu yemoon mais nan la defee yow bëggoon na la wala mu demoon na yow daana waxtaan ak yow. la daan wax. Ah, non il faut nga leeral rek pour pour pour ñu lay déglu parce que yu mel nii souvent dañ koy faral di gis te yow yaay nga il nga leeral pour ñi nga xam ne bi ñoo am seen ah, doom yaay di mel ak doom rek ni la meloon ak man na hmm, bëgg na hmm, hmm. ci lu mel na ban genre mbëggeel genre bépp rek fépp daana la daana la bu xëyee rey bi ko yëgee amoo loo moom ñëpp moom ñaata doom la woon ci Hmm. Hmm. léegi yow ana lan ngay dénk sa morom yi jigéen ñi ñu gën ko bàyyi xel xale yi. ah xanaa di ko dékk ñëpp ñi ci mbedd bi ñëpp nag. Hmm. di ko dékk xam ne yàlla moom mooy sàmm yaay ma mënut doom ju ne mu teg ci loxoom. yàlla mi nga ne mooy sàmmi nag yàlla sàmm ñëpp. moom fi ne nii néew bi fan la ne. gis nga ko yow. Hmm. léegi yaa ngi ni toog fekk naa la nga toog nii fekk nit ñi ci néeg léegi affaire moom da ngeen ko yóbbu ci yoon hmm? pour yàlla feeñal ko quoi loolu nga bëgg ah nu nu nu mu demee rek baax na que est-ce que jot jotu nag léegi ñu bàyyiwaat ñu xool ñi xam ñoom ñooy di peut-être mën naa est-ce que du sacrifice hmm? ah, ndax daal vraiment rek ko ñaaw na man lu toll nit. Hmm. yaam amul lu dul na moom àdduna am jëpp doon moom. yaakaaram mu def ko. nga xëy xëy def ko noonu. xam nga naqari na bépp képp ku jur doom rek naqari na la. loolu hmm. moom yow mi yow mi taxaw sax naqari na la. Hmm. waaw. léegi nag euh, lañ war a def ci xale yi xale yi pour ñu bàyyi leen xel ñuy def ñaaw ñaawteef yooyu nga xam dañuy sacrifice. ñi ñuy sacrifice. waaw ñu di leen bàyyi soo gisee nit ku teexaale rek. nga laaj ko gëstu ko ba xam lu tax mu teexaale. xanaa fi ñu ko rey woon amul ay nit ñu fa hmm? yow ak yotoo fa àgg yow daal dañoo ñëw wax la ko rek daa am ko la ko wax. Hmm? maanaam daal yëgandoo lañ ko def koñ boobu ñëpp ñoo ko yëgandoo benn yoon. dañ doon doxantu ci côté station bi comme maman bi heure bii nii ñu toll nii rek. Hmm. ñu dem di doxantu ji noonu ci lañ jékki-jékki gis nit ñi di daw. après ñun sax pour ñun ay. nit ñuy xuloo affaire yooyu la comme jigéen ñi noonu ñu koy defee ñoom seen biir mhm. te leen a yegg mhm. seen demee daal ñu ne benn xale leen rey foofu nit ñi di mhm. dafa tuur dafa ñaaw xale a toll ci huit bu beeg baat non ba beeg baat moom tàggalu ko mais dañ ko rendi moom loolu moom ñun gis nañ ko moom ndax ñun dem nañ ba tiim ko kenn nit luwuñu ko mais daal rend wi daal ñaaw na moom rey moom dafa ñaaw wax dañ ko summi woon wala bañ ko defuñu ko dara bi ñu fekk nañ booy bi ak yére ma yëpp mais dañ koo dëpp mm-hmm. xamaatuñ ndax dara jóge na ci moom wala dara jóge ci moom mm-hmm. xamuñu ndax dara jóge na ci moom wala dara moom loolu moom mel na ne enquête rek moo ko mën a génn uh-huh. Uh-huh. ndax ñun bi ñu ñëwee fekk xale bi ñu rend ko ñu mu dëpp mm-hmm. dañoo ñëw rek wut benn saako ñëw muur ko fekk papaam mu ngi fa taxaw yooyu noonu après ñu xaar ko muur waaw ñu xaar saboor benn gannaaw bu ñu wax laat fay moo moo ñu jox saako bi jox ko papa mu muur ko après ci lañ taxawee xaar yoon mu ñëw def liggéeyam affaire yooyu noonu démb ci ngoon ñun doon foogoon nañu sax xale bi danañ toog ay fan ñu doo koy denc yooyu mais ndax ñun fii lañ toogoon dañoo jékki-jékki gis nit ñi bëri fee torop ñu laajte ñu ne yóbbu nañ ko denc ko ba ñëw affaire bett nañ torop ñun nag bëggoon nañoo xam lan moo tax ñu denc ko ndax ñun xamuñu ci mbir yoon dara mais nag bu ñu sañoon dinañ ñu wax lan moo tax xale bi ñu ko yóbbu hôpital yóbbu ko hôpital taf-taf ñu denc ko ndax ñun mosuñu gis camp mel nii ba pare camp bu nii ba pare ñu denc ko urgent mhm. wax dëgg ko waaw ñu faatu ci bis bi ñu denc la ci bis bi te lañ laa rey mhm. pour ñun affaire autopsie bi daal war nañoo a xam naka la mhm. denc nañ dem ci denc gi sax dañoo naqar ndax ñun fii koñ bi ko fi décédé ñun ñëpp dañu mobiliser wu dem ci denc bi ñaanal affaire yooyu mais affaire métti nañu mais ci problème sécurité bi nag la ñu wax ndax amuñu benn njariñ gis nañu bu élection jotee yooyu nag la ñuy ñëw a dëbb dëbbal di naxante ak ñun monte que ñaar lamp ñetti balaat élection yi jeexaat wala bu jeexaat lamp yi fay mhm. xam nga mhm. yëpp boobu jaari guddi bi ñuy déglu nag ak kër yi parewul aussi kër yi kër yi ñu tabax aussi parce que fi ko kër gu kër boobu yàgg na ndax man paak boobu man man juddoo ba léegi mosuma gis nit dëkk ci koñ bi laa juddoo am naa 23 ans